arbitre ba sifflé na doomu Loro ak Talbombé Talbombé ak doomu Loro da nga ca digg géew ba di lëwtoo doomu Loro ak Talbombé doomu Loro ak Talbombé da ngay lëwtoo ñoom ñaar doomu Loro wàcc na Talbombé mu ne tekk rek di ko déglu kaas na léegi doomu looro jël na ko tal bombe fàqat na na ko jàpp na ko doomu na tal doomu looro daan tal bombe doomu looro daan tal bombe doomu looro daan tal bombe